cinaa na bugaan gay danee ngay songu président Macky Sall turbine yéene kaay ma ko xamal la tey moo yéene kaay ne ko géy kay gannaaw ba mu jooyee moom i moomi dani nekk cib naqar ak tiis ak dëj gi mu ne wul ma nga naan président Macky Sall maa ngi lay song si daal di taxawal open press tour bugaan 2024 moom jiital gëm sa bopp ne Benno Bokk Yaakaar laa fas yéene salfaañe turbine yéene kaay naan ko déet moom bugaan gay dani kay ci week-end bii nee na ma nga jëm Tamba jëm Kédougou jëm Kaffrine jëm Kaolack waaye tam jëm Fatick sabab gi nag du lenn dootul faase président Macky Sall 24 a kaay naan man cib tournée la ko fas yéene jaarale ngir daal di nag vision ci wàllu politique ñetti fan diggante Tamba Kédougou Fatick ak Kolda Bougane Gueye Dany war a wane boppam l'évidence yéen a kaay naan man moom gëm bopp day ma ngay joxoñ Benno Bokk Yaakaar naan kon cey boo ma terewul mën naa la laal salfaañe lépp loo xam ne teg nga ko fa direct news naan man gannaaw naqar gi moom Bougane Gueye Dany daal dinay woote ay tournée yoo xam ni taskatu xibaar yi lañ ciy àndal ci biir réew mi wan nag taskatu xibaar yi yéeneem ci réew mi waaye tam jafe-jafe nga xam ne biir réew mi ñu ngi koy daal di dund yor yor yéene kaay naan maan waa gëm sa bopp ña nga naan waa bennoo bokk yaakaar bu leen laal bu leen nu jege ndax fi mu ne mbugal lañ leen fas yéene defal ci langu politique gi le mandat yéene kaay naan maan bugaan gay dani soobuwaat na ci lang gi open press tour la daal di woote bugaan 2024 waa grand place naan maan bugaan kay ma nga fas yéene salfaañe waa bennoo yaakaar dugg ci turbine yéene kaay naan kon faasale président Macky Sall waxoon lépp ca Kédougou ak la ko wër waa grand place naan kon ma yigli rek parrainage yi xam ngeen ni la ca des bareetul ci tëj ko candidat bu gëm bopp bi war a doxal ab mission commando wan askanuk Sénégal lan la fas yéene ak ñoom bés buñ ko dénkee nguur gi te naan leen waaj naa lépp de ay préfet yuy tere sama doxantu wala it ay cortège yu ñuy bloqué lacrymogène yu nu war a sànni dund naa ko te waajalaat naa ko terewul ma la ñaabar ñaabari jëm ci askan wi ànd ak taskatu yi nga xam ñoo nekk ci yooyu la gox wan leen sama yéene ci réew mi waaye wan leen it président Macky Sall dige yoo xam ne ba mu ko fa defee yàgg na te furaas waa grand place naan maan fas na yéene saafantoog ay militant am dajale responsable yi waaye tam jaajëfal leen ci taxaw nga xam ne taxawu nañ ko ko gannaaw ba mu ñàkkee ab soxnaam yéene kaay bi naan maan boo moytul mbëkkante am ca wala yi dox daje lépp ngi ci biir diggante candidat Benno Bokk Yaakaar beeg président Macky Sall diggante tournée waa gëm sa bopp ak président daje mën naa am à tout moment en tout cas yéene kaay bi naan maan doore ko aljuma ji ña a jëm ca Tamba cib commune bu ñuy wooye Kucaaba ca Bamba Caaleen ca Kayeen ca Méréto ak ca Malem Ñaani ca Kumpentum war a def escale ca Kowar ak Kocaari war a dem ci département bu Goudiri gaaw bi di samedi bi moom Bougane Gueye Dany fas yéene dem ci Kédougou foofee mu war fa dajee askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca Bandafassi ak Salémata laataa muy amal dajeeg taskatu xibaar yi ci ngoon gi ca wil ba dibéer gi ca dimanche ba coalition gëm sa bopp war a dem ca Fatick ca Mbaar ca Gosaas war fa jaare dem ca Kaolack demit ca département bu Guinguinéo fas fa yéene mobiliser deux minutes pour lire l'essentiel naan Bougane Gueye Dany nga ca Kédougou fas yéene xool yëraat bu baax a baax la fa Sall wax ak la mu fa la mu fa def booba critique yéene kaay di ma xamal ne président Macky Sall day ay gaayam lu lal mu daal di lalli ña nga xam ne daal dina ñuy fippu génn ci coalition am ñooñee la président Macky Sall daal di mere ba mar day taali le mandat naan président Macky Sall day wor gi nga xam ni ñenn ñi war nañ ko ko ci mu ne leen bàyyi leen ñu daal di lii moo ko daal di métti Sall naan lii mën na yàq lépp loo xam ne tëggoon nañ ko ngir jël nguur gi vox populi naan maan moom président Macky Sall day ma ngay xam le ni askan wi daal fi mu toll nii ñooy daal di tabb ñooy daal di xool la nga xam ni moo leen saf ñi daal di ko def ci réew mi man daal bu ñu xoolee samay réalisation man Sall à tout moment mën nañ bëgg continuité am ci réew mi tribune yéene kaay naan ko déet ban continuité woy jox leen suñu réew mi waxtu woo xam ni seenu budget mi ngi yokku ci réew mi te waxtu wane yokku seeni budget sénégalais yi moom seenu naqar ak seenu toroxtaange mi ngi daal di yokku seenu misère ak seenu ñàkk ci réew mi yokku njaboot ci daal di soobu ci naqar goo xam xam ni maar day taali bari na ci kër yoo xam ne fi mu ne xiif nañu bu ñu xiifulit la ñuy lekk dara baaxu ca Walf Quotidien naan ngeen waajal seen bopp rek te xam ne garab ci boppam fas ta yéen a yokku ci réew mi Vox Populi naan kon imaam ak kilifa ye nekk ca jokkul ca Tëngéej moom dañoo faf wooteb ñoo ndax daanaka seenu gox ya kenn desatu fa xale ya dem nan màngaani te nee ñu kat coonoo leen ko teg de xale yi man la dem ci géej gi faatu moo leen gënal toog ca bërëb ba di gis xiif ak naqar nga xam ne seeni waajur ñi ngi ko daal di nekkee ña nga xam ne ñoo fa des daal dinañuy sóobu ci drogue drogue ak yeneen fitnaal mag ñak soxna yi nga xam ne ñoo fa des l'info yéene kaay naan kon fi mu ne daal mool ci boppam moo desatul ci réew mi diggante Mauritanie ak Maroc ñooy indi jën wi fii ci Sénégal Thierno Sow ab dokeer la daal ne bu dee ji sax la ñuy indi baax na waaye bu dul woon ak ñoom ma ne la làmbaay dina ñaaw ndax ñun ci boppam duñu am xëy ci askan wi ci boppam daañu tëla jën gu ñu lekk ndax jën nappatuñ ko ci waaxuk senegal gii ndax géej gi ci boppam la ñu jaay Abdoulaye Ndiaye Greenpeace Sénégal de daanaka moo daan dundal dëkk yu bëri ci Afrique tey jii Mani l'observateur daal di sampub laaj lii nag mbaa taxul inspecteur impôt domaine yëpp daal di soobu fi mu ne ci wàllu politique yor yor yéene kaay naan kon en tout cas Bassirou Diomaye Faye moom tey na ñàpp projet bu Pastef bi te suul naan du ko teree feeñ te ci boppam ña nga naan Bassirou doxalal direct news naan man Thérèse Faye it ma ngay daal di doxal di wane leadership am gannaaw sargal président Macky Sall ba daal di nay boole waa moom Thérèse yéene kaay bi naan man te boole mani la xol ya gënoon wow sax da koo def faf l'observateur naan man fii la réew mi tollu de